xanaa du ñu nekk ci éternel recommencement keroog bi Macky Sall wootee ci affaire Lions yi fii ci stade bi Ousmane Sonko dafa dafa dem Proxaan fekk fekk ko fi fekk mu dem Proxaan mais li mu nekk nekk Proxaan publier na Facebook am bind remercier Macky Sall remercier euh, euh, euh, Lions yi féliciter leen féliciter Sénégalais yi mais lu toll ni ànd sàmm jikko yi plus de quatre-vingt-cinq associations yu taxaw di xeex ay valeurs di xeex affaire góor jigéen woo homme politique yi kenn ñëwul kenn ñëw si kuréel Cheikh ba Dièye ak euh, euh, Mamadou Lamine Diallo à part ñoom amul benn homme politique parti politique bu ñëw mais Ousmane Sonko mënul sax def publication Facebook quoi. publication Facebook sax remercier féliciter ànd sàmm jikko yi quoi ci mbooloo bu toll nii volonté populaire mbooloo bu toll ni ñëw taxaw yaa ngi féliciter ay Lion yaa ngi féliciter kii keroog bi ñuy def euh, yeewi askan wi mais danga def ay publication Facebook def ay live Facebook. jàppale Ahmed Ahmed Aïdara ay Barthélémy Dias ak ay hommes politiques yoo xam ñu ngi nekk si coin yu gën a reculé nga def ay live yu ndaw mais léegi lu tax Ousmane Sonko am problème mu def live quoi live bu ndaw